ñi am météo contentement baax a baax démb dañoo gis ay images yu am solo lool biir Pikine gis waa kër Boy Niang jiw kër Ambale ànd ak moom démb ñëw ci li ma ma ne ci drapeau bi ànd ak Balde muy kilifa wu Ama di kilifa kër ga mais mbir mu rafet daal Gilles. waaye sant yàlla rek jul si sant suñu ñaar waajur sant suñu sëriñ Atem Mbacke yaa ngi yàgg te wér loolu yàgg na Pikine ñoom déglu ñu ñoo ànd dem mbapat ñoom ñoo na dem ba pat de di bëre fu nekk fu nekk ñoo na ànd dem affaire du tey de ñu yàgg dañu yàgg ànd xëy na nit ñi ñoo nekk rek di wax rek di caaxase esprit gars yi rek waaw man dëgg ko gars yi wax ko boo xoolee ñu bëri ñoo na Pikine bu ñu àndul boo leen duggee rek leen bu booloo dañu dañu na xaree bëreel parce que boobaa dañuy benn bloc la ñuy doon dëgg la ndax ñun bañuy ànd mbapat nii boo daanee boo daanee kenn non gars yi non da am problème ñëpp la ñuy daan boo daanee kenn non Pikine kenn mosu leen topp mbapat mbapat mbapat mbapat bu dafa dañ ko doon tëj nii billaahi wallaahi taalaahi ak suñu fàllu mbag waaye ne Pikine bu booloo def nii mënoo leen daan dem bi jëm ci làmb ji Jules waaw mooy yoon ndax ñoom ñaar ñoom ñaar ay morom lañu ñoom ñaar ay maas lañu ñoom ñaar ay xarit lañu comprendre bu fi kenn nga new kenn ki mën a participer moromam waaw mais actuellement yéen a ngi préparé seen combat yi Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw ñu ngi koy préparé ñu koy pare ñu koy waajal bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf si. ok merci Diar Fane. may ma ko may ma ko tuuti. man kii sama papa la. même là ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. xamul tax ma jël la. waaw. ñun journaliste yi. Hmm. ñoo ñoo doon dugg Pikine naan Pikine dafa ay jafe-jafe. mais tey man maay duggaat Pikine ne Pikine amul benn jafe-jafe ñëpp a ci jàmm ak salaam. Boy Niang dem acte bi mu def dafa daw yaram ak tey tamit li mu defaat tey tamit. xam nga ñun ay mag lañu. te duñu wax lu ñu xamul. bi ñu mujjee toog ci plateau dama ni la. su fekkoon acteurs yi ñoo am problème. Uh-huh. kon du kon man du ma ci wax dara. damay xam ni ñii am nañu problème. mais acteurs yi amuñu problème ndax man ki ma saaga man. du waa Pikine. mais ku gis démb image yu démb ji. Oh. Ama Baldé ñu tuddee ko drapeau. ñu ciy gërëm bu baax na Pape Sarr geste bu noble la Pape def parce que Pape Sarr c'est un vrai te chaque fois muy montré ni moom c'est un vrai Pikinois tuddee Ama Baldé drapeau Ama Baldé nekk ci liggéey wa ah woo booy ñang ni ko dama bëgg nga taxawal ma foofu oh. mu ànd ak famille am famille am yëpp ak ay xaritam ay am di jàmmam ñu ànd ak groupe école de lutte Boy ak Boy Niang ñun ñëpp ñu nga ci woon ñëw ëmb leen ñu ñëw représenté drapeau bi Pikine nag benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te it généralement yu nekkee benn lépp lu ñuy xëccoo dañ koy jël. moo ma moo tax combat di ñëw. combat daf may wóor ni pas-pas bi nga xam ne Pikinois yi am nañ ko actuellement ak yéene bi ñu am ak lii weesu ñu xam ne ay regret la yaakaar naa ne li ci topp yëpp ay bànneex lay doon. te tey boo Niang dafa woote en direct ci conférence presse Eumeu Sène bi. ne ko suba maa ngi ñëw ñu contact yaa ma joxoon clé bi ma daanee saa kees. waaw loolu ay wax yu wóor la. te dama ñoom ñii ñoom ñëpp laa la ba ci xale yi ndaw yi ñoom Pokola ñoom euh, Jacob Balde ñoom Ndiaga Thiam kenn ku si nekk fas yéene woo daanu ndax fi nga teg sa combat ak application yi nga xam ni magu Pikine yëpp dajaloo na ñu nekk benn ci seen ginnaaw pour jàppale leen te incha allah yàlla dina leen may ndam. mais am seen Sa Thiès combat non am na bu rëy. am ngeen leen di waxaat rek. ci Tafatine loolu laa leen doon wax ñu dañuy wax ni Tafatine dàq xeex ak daf koo tiim ak mais kenn ku nekk gis na combat boobu ama seen combat bi mu livré ama seen aussi ñu ngi koy xaar xam nañu ay potentiel yu mu yor buñ ko boolee nag ak ñun li yor day nekkaat un plus. lii mu yor moom. plus ñun li ñu yor suñ ko dajale waatee nga gis loo xam ne. en tout cas foofu daal laa yem ak yow. ñi am météo contentement baax a baax démb dañoo gis ay images am solo lool biir Pikine gis waa kër Boy Niang Diouf kër Ambale ànd ak moom démb ñëw ci li nga xam ne mooy ci drapeau bi ànd ak Gilles Balde muy kilifa wu Amady kilifa kër ga mais mbir mu rafet daal Gilles. waaye sant yàlla rek. jul si yonent bi sant suñu ñaari waajur sant suñu sëriñ Atem Mbacke yaa ngi yàgg te wér loolu yàgg na Pikine ñoom dégul ñoo ñoo ànd dem mbapat ñoom ñoo ànd dem mbapat de fu nekk fu nekk ñoo ànd dem affaire du tey de ñu yàgg dañuy yàgg ànd xëy na nit ñi nekk rek di wax rek di caaxase esprit gars yi rek waaw man dégg ko gars yi wax ko boo xoolee ñu bëri ñoo Pikine bu ñu àndul boo leen duggee rek leen bu bool dañu ne dañu ne xaree parce que boobaa dañuy la ñuy doon waaw loolu ndax ñun bañuy ànd mbapat nii boo daanee boo daanee kenn non gars yi da ngay am problème ñëpp la ñuy daan boo daanee kenn non Pikine kenn musu leen topp mbapat mbapat mbapat mbapat bu dafa dañ ko doon tëj nii billaahi wallaahi taalaahi ak suñu Fallou Mbacké waaye ne Pikine bu booloo def nii mënoo leen daan bi dem ci làmb ji Jules waaw mooy yoon ndax ñoom ñaar ñom ñaar ay morom lañu ñoom ñaar ay maas lañu ñoom ñaar ay xarit lañu comprendre bu fi kenn nga new kenn ku mën a participer moromam waaw. mais actuellement yéen a ngi préparé seen combat yi Ama Baldé Gris Bordeaux. waaw ñu koy préparé ñu ngi koy pare ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf si. ok merci Diarfane. kon si may ma may ma tuuti. taan ba xam ne ñun ñëpp dañuy doon benn. loolu nag moom moo am démb. yaayu Ama Baldé bëgg ko Souleymane mi nga xam ne moom mooy kilifa foofu si kër gi bëggu ko. Paate bëggu ko Eumeu Sène bëgg ko soq bëgg ko képp koo xam ne rek yaa ngi woon Pikine muy baaxum comprendre nga grand Mansour Diop Paala ñëpp ñëpp bëgg loolu. moo tax loo noonu rek la war a demee xam nga nit ñi dañuy wax dañuy créer fu problème nekkul man du wax sax site yi parce que boo généraliser sànq généraliser naa te waruma généraliser am na si ñoo xam ne ñu ngi wax sportivement parlant mais am na si ñoo xam ne ñoom fin du mois donc la ñuy calculer moo waral yenn affaire yi mais amul solo àdduna amul solo ñu mënul ñu mënul tàqalikoo dañuy ànd. te te boo ñaar dafa woote tey si biir conférence presse Eumeu bi ne ko ba may bëri saa kees yaa ma joxoon clé ba ma ko daanee woon dinaa ñëw ñu contact ñu waxtaanee làmb ji. non loolu moom loolu moom peut xëy na yéen yéen a yéen a yéen a nekkul au jàppason rek mais Eumeu Sène moom ñun waa école de lutte Boy Niang ñoo ngi dem entraînement waaw peut-être ama moo fi nekkul comprendre nga mais ñun ñoo ngi dem entraînement te open presse bi semaine bii ñu jëm dina leer. comprendre non loolu. Eh, eh loolu ma ne la ba ngeen ñëw. di xam ne Pikine benn bopp la comme niñ ko yàggee wax. non ma ne dañu du yéen yéen a wax saa yu ñu àndee. comme yéen ànd bi da ngeen a bëgg ñu koy jëf nit ñi di ko gis léegi dañ koy jëf amatul wax. jërëjëf comme wax comme wax doyu leen jëfa leen doy. jeex na jërëjëf jërëjëf sama. waaw su démb yi rafet na. waaw waaw waaw non dañ koy gëj a def rek mais toujours ñu noonu lañu ñu àndee nag waaw. Boy Niang dafa woote ci direct conférence presse Eumeu Sène bi na ko ba may daan saa si yaa ma joxoon kele ba grand bi maa ngi ñëw ñu contact ñu décroché mbir mi. waaw ñun ñun ñun ñooy grand yi ñun amoon na ay temps la ñuy def xëy na des fois xam nga jot yi mooy manqué mais ñun yàggoon nañ Eumeu Sène wala booy ñaa am combat ñu woote dajaloo fajar gi ñoom ñëpp ñu contact. bun paree ñibbi mais loolu moom yàgg nañ ko def moom yàgg nañ ko def xëy na daw daawuñu ko fësal nag comme ñeneen ñi niñ ko daawan fësalee waaw mais lii moom lu yàgg Pikine la moom man dama doon ànd ak Baboy dama ànd ak Zil Balde seen carrière yëpp dama ànd ak Zil Balde Zil Balde maa ko mujjee entraîné dernier combat am mook bu naa ma rasta cek maa ko mujjee entraîné dernier combat am moom ak euh, euh, nu mu tuddati Soulay Doob Soulay Doob waaw Soulay Doob waaw ñun noonu moo ñun ñi nekk mag ñun toujours na mës si ànd booy yi nag àndu xale moom noonu la tey dañuy xeex suba ñu xuloo mais du leen tere daji bokk géej bokk benn salle tamit bu ñuy entraîné loolu moom mësuñ jóg Pikine waaw xëy na daf fi gëj rek di ñaan yàlla tamit seytaane gëj fi waaw ndax yooyu yëpp boo xoolee ñi doon def yooyu yëpp kenn dëkku si Pikine ñi doon jaxase ñoo ñëpp kenn dëkku si Pikine waaw moo tax bu heure wax dëgg jotee yéen pikinois vrai pikinois yi ngeen di ñoo génn mi ngi nii ñu wax jërëjëf jërëjëf jaajëf waaw sant yàlla rek. doo doomu Pikine. waaw Bamba sama rakk la moom moo ma fi indi barki Serigne Touba Mbacke démb si guddi laa ñibbi si ndax combat am. di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam rek ci barki yonent bi. dëgg la taxawaay ci ci lamb jamono ji gis nañ ànd bi ah. Sarr. non Pikine moom dégg jàmm quoi. ñi fa nekk ñëpp. képp ku ci takk ngemb rek maa lay ñaanal suñu borom defal ndam bu sedd guy ci barki yonent bi. dëgg la aja gaynde amul ragal def ci kot. <laughs> baal bett na tey waay. sama waay maa ngi lay siyaar. sant yàlla. Pikine. ànd bi ñu àndaat jamono jii. wut oh. dégmal combat. man moom wax dëgg yàlla Pikine moom mënu ma wax seen ànd ak seen taaxalikoo quoi parce que ñoom ñu dëkk ci ànd ak di taaxalikoo. Ah. ñoo mën chaque semaine ñu ànd chaque semaine ñu taaxalikoo sama yoon neexu si. sama yoon neexu si. am ji semaine bii ñu ànd semaine bee ñu taaxalikoo sama yoon neexu si bu ma ci laajal. <laughs> Sa Thiès am na waaw mën na rapidité mën na bénéficié wu ci kawam a seen dafa ne léegi ndax erreur u Sa Thiès que du erreur mooy foram mais erreur yi bi mu ko defee ci Malick Niang bi mu ko defee ci Boy Niang kon bu ko defaatee daanu parce que am na mbër yoo xam ils sont vigilants léegi Malick Niang ak Boy ñaa bokkuñu ak ak ñi doon bëreeg ñoom Sa Thiès mooy booyu ndaw yi xaw nañu am benn classe tuuti Boy Niang mi ngi ci biir VIP yi bi muy bëreeg Sa Thiès sax du ñu woon ay VIP mais a am ak calcul am may na ko mu xool erreur u ba daan ko ci. te Eumeu Sène boo Boy Niang bi Boy Niang di ñëw di bëre seeg Sa Thiès Eumeu Sène ko yëpp kon Sa Thiès waxuma la erreur ma daggatu erreur bu ko defee daan.